wàllu naka suba si. sant yàlla bu baax. alhamdulilah. ah sëñ bi. waaw. waaw waa ngeen bàyyi waa waa APR ngir yàlla mënuñoo dimbali ngir yàlla noppi tëj seen gémmiñ. ah lu xew. mais sëñ bi yow di nga nekk ci dëkk. Mhm. di rey nit ñi ala numéro 9 bi di rey nit ñi di tëj nit ñi. bi intimité nit ñi ba nit ñi jëlee leen fi nga bëgg ñëw yow même pas deux mois nga yor sa làmmiñ bëgg a wax wala ñoom dañoo xamul ñoom lu fi newoon moo fi nekk ba léegi yow mënoo nekk ci dëkk dëkk dafa am loi yow mënoo nekk ci dëkk nit ki nekkul dara nga koy saaga di ko xas di ko kii ba mu toog nekk ci dara nga continuer loolu lu tax duñ wax lu am importance mais nañu wax ci mbay mi nañu wax ci jàng bi na ñu wax ci kii mais Sénégal ngay gis douze mois politique politique politique te yéen journalistes yi am ngeen ci part responsable parce que yéen tamit li li li ñor nit ñi. Mm-hmm. ci boppam duñ ci duñ ci basé wu. dañuy topp góor jigéen la pourtant indi nañu indi nañu thématique bu am solo indi nañu thématique bu am solo ñuy ngi waxtaanee lu jëm ci mbéy mi ñu ngi waxtaanee lu jëm ci euh, fond Covid 19 bi. xam nga yéen tamit bu ngeen defee noonu à chaque fois bu ñu indee loo xam ne ab thématique la ngeen bàyyi fa thématique bi di wax ci leneen également. voilà ngeen jàppale journaliste yi parce que à chaque fois dañuy indi thématique boo xam ne dañu a wax. Mm-hmm. waaw nga wax dëgg la. maa ngi jégalu parce que dama déggul woon dama woote te dégluwuma thème bi. voilà c'est ça. da ngeen di liir waaw ah, maa ngi leen di ba pare. maa ngi leen di féliciter bu baax ci loolu. dégg parce que li ngeen def nii la. waaw maa ngi leen si félicité bu baax. tey tey li ñuy waxtaanee bu defee dara lu baax nañ koy waxtaanee. dëgg la li ñuy waxtaanee tey moom mooy euh, subvention yi nga xamante ni ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu mbay mi def na ko ci wàllu njëgu gerte gi ci wàllu engrais bi ngir jàppandal béykat yi ngir ñu mën a am campagne agricole bu mucc ayib. loolu mooy benn bi beneen bi moom mooy fond force Covid 19 bi mooy euh, li jëmoon ci mbas mi koppoor gi nga xamante ni dugaloon nañ ko ci te am ñoo xamante ni dañu jàpp ne dañ ci dañ ci luubal euh, toll na ci 10 dossiers yoo xamante ni mu ngi ci taabalu procureur ngir procureur addu ci loolu saytu ko ba képp koo xamante ni dañ ci laale yoon man la man na man la teg ay daan loolu mooy ponk yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee. waaw léegi nag maa ngi leen di ziar ci loolu. léegi baykat yi xam nga man du baykat wax dëgg ne yàlla. Mhm. mais li ñu def dama cee kontaan. Mhm. parce que mbay moo yor réew ñun fi ñu nekk fii baykat boo gisee baykat dangay dangay da ñee baykat parce que baykat mooy ëpp doole moo ëpp alal mu moo ëpp do alal te liggéeykat téeméer yoon doo gis baykat boo xam ne amul dara ñoom tamit nañu góorgóorlu ba liñ leen jox nañ ko bay bay bu baax bu kiwee tamit bu génnee tamit ñu jaay ko jaay bu yomb mm-hmm. parce que ndimbal buñ la dimbalee nit ki mënul a topp tamit di la dimbali sax ak sax at dañ lay dimbali première ak deux ans mais yeneen at yi nga góorgóorlu ba demal sa bopp bu boobaa dina tax ñi nekkoon dakaar di bay nekk baykat ñëpp dem ñibbi dem bay ji parce que dañuy xam ne bay bi am na njariñ ñaareel bi mooy li ñu teg si kii yu procureur mhm. mais kooku na def liggéeyam nañu bañ def kon nu ñu defoon Karim Wade rek mhm. jàpp ma Samba jàpp ma dem ba bàyyi mhm. bu ñuy jàpp nañu jàpp ñëpp bu ñuy bàyyi nañu bàyyi ñëpp parce que xaalis bi sëñ bi ñii li ñu jël mais mën na nekk hôpital ñaata nit a war a nekk dem hôpital di faju amuñu lu ñu fajoo mm-hmm. man man man na njëgu ambulance am na ñoo xam ne dañuy woote ba sonn pour jël oto bu leen yóbbu hôpital sax amuñu ko mm-hmm. yéen ngeen toog naan restez chez vous di lekk xaalis xaalisu nit ñi ñii amuñu yërmande te ci lekk dërëm dërëm bu gën naw ku ci lekk nañ ko teg ci yoon na fay ba pare tëj amul na fay bu mu amul nañu jaay këram wala jaay beeyam mu fay alal ji mu jël parce que tamit nit ñi tamit dañoo sonn Sénégalais dañoo sonn kenn baal ñu jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yam solo yooyu lay euh, ñu koy jaajëfal di xaarandi keneen rek ci buumu mu jokkoo bi ci 77 810 90 90 li mel ne am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah Xalilullah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ana borom borom kii noonu ko wooteel rek sa woote baa ngeen ñëw de ah. waaw añ màkka gi yow Xalilullah. mu ngi jege si de macha allah ñu ngi lay ziar bu baax. waaye fii la ëppee waaye sang bi namoon la lool nag namoon la lool lool lool lool. alors macha allah. indi nga lu am solo indi nga lu am solo ndax xam nga euh, lu ne waxtaanee ko. Mhm. Euh, balaa muy agsi ñu waajal ko ndax mhm. nawet lu ñuy waajal la. Mhm. te mbokk mi génn sax wax na lu am solo xam naa mu ne moom nekk ca tool yi du bay waaye bay bay moom dafa yaatu. maanaam tool bee yaatu ña nekk ca tool yi di bay ak ñi nekk beneen waar xam nga yéen yéen sax yéen a ngi ci waar yi fii nii li nga nekk ni tool la de. Mhm. waaw maanaam lu mbéy mu rafet rek maan ñuy ñaan comme jiw wi li nga ko waxee xam nga béykat moom bu amee tool suuf su baax mhm. am jiw bu baax am tos euh, bu amee ay matériel rek dangay gis ne loolu dina yomba dimbale. te buñ fekkoon ne suq buñ suqalee mbay mi rek dina wàññi lu bëree bëri gis nga li ñu wax nii yëpp. Mhm. ni dund gaa ngi seer um, eh, ak yu mel noonu da ngay gis ne dafa am banque bu fekkoon ne eh, garab gu mag gi nga xam ne bànqaas yi ko téye eh, muy mbéy mi nga dem ci commerce business bi muy li ñuy wax njula waaw njula gi mhm. njula googu nag dafa yaatu ma gi ci la bokk napp gi ci la bokk ak yeneen ak yeneen yooyu buñ ko dëgëralee rek da ngay gis ne sax danañ dem be Euh, lii di jàngoro Afrique Afrique nga xam ne dañ am benn jàngoro bu métti métti muy suñ ndaw ñi nga xam ne ñu ngi topp mbëkk mi. mu métti lool ci africa ñoo war cee taxaw. te buñ suqalee mbéy mi suqalee bunt yu bëree bëri da ngay gis ne dinañ dem ba la ña doon jógee fii di dem defe naa dinañ am lu leen tënk ba dootu xalaat sax pour génn kon nag ñi ngi ñaan rek nawet bi yàlla ko yàlla barkeel jiw yi ñuy joxe ak euh, dimbale googu ndax nag béykat boo ko dimbalee rek. Hmm. Euh, ñëpp nga dimbale. Euh, boo gisee capital bi rek xat mooy bu bu waaw moo bu mbay mu nangoo dëgg da nga gisee capital bi sax ñi daan ñëw ci soro euh, ci ci Ibrahima di la gane si di ut ci lu ñu am bu yàgg dañuy dafa am lu ñu lu leen dooy ba dootu ñëw. Hmm. ah da gis ne yow sax da ngay yow mi ci capital bi sax waaye bu bu mbay mu nga gàntoo sax ñi ci capital bi ñoo gën a kii ndax foo toll am ko gan gu ñëwee nekku hmm. ñëw ut si dara kon su ko defee mbay mu ñu dooleel ko ci wàllu jiw ci wàllu tos. ci wàllu matériel yi nga xam ne moom la ñuy soxla ñu jàppalante ji ñuy béyu te am suuf ñu ñu able ko wala ñu maye ko wala ñu joxe ko waaw lu fii da ngay gis ne luye sax day am ci loolu waaw su ko defee yooyu daal bu ñu ko yaatalee rek da ngay gis ne dina nekk njëriñ loo xam ne li ñuy jàmbat ci wàllu euh, dund gu seer gi dina am bunt yu mën a fatt bu baax a baax a baax seen mbokk fii si Gambie Mamadou Bachir asalaamaaleykum wa rahmatulah macha allah macha allah koy jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed Bachir di woote foofu ci diwaan bu Gambie di ko jaajëfal ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ni dafa yëkkati saa su nekk bu àddoo ci li nga xamante ni moom moo di antenne bi di nuyu également ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp saa su nekk ci suñu ay plateforme di leen ziar bu baax a baax euh, Basirou Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax Ibrahima Faye également ñu ngi lay nuyu soxna Binta Sarr ñu koy nuyu euh, sama toma Ibrahima Pleya euh, moom gëj naa ko gis mais maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. di leen di jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di ni keneen rek ci buumu jokkoo bi ci 77 810 90 90 mel na am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar kilifa gi. waaw kilifa a baax. macha suba si. waaw di jaajëfal waaw man moom si côté dund gi xeer geeg yooyu noonu nga doon wax léegi. Mhm. Euh, maanaam ki yokk dund gi ba tax Sénégal yi di jàmbat ne dund gi seer na euh, Macky Sall la mais état bi ñu ngi ciy def effort yoo xam ne damaa yaakaar ne journaliste yi nekk Sénégal nanguñ koo gis parce que ñoom bu leen fàttali ne fekk ñu dara ci keesu réew bi bi ñëwee effort yi jot a amaale bañ mën a fay salaire yi ba opérateur économie yi boo gisee démb wax nañ ko ñoom nag fay nañ leen Euh, te aussi tamit fexe nañ ba wàññi engrais bi. Mhm. fexe nañ tamit ba nga xam ne suufi jàmbur yi sàccoon ni ñuy fexe nañ ko nangoo delloo ko seeni borom loolu yëpp boo ko gisee dañuy fexe pour préparer jubluloo Sénégal yi ci mbay bi. Mhm. parce que réew mu xamante lépp loo am da nga koy importer te ñooñu noonu xamuñu Sénégal xamuñu beneen réew ñoom dañuy jaay rek. Mhm. te ñooñu ça dépend nu marché bi mel rek ñoom noonu la ñuy jaayee. loolu dafa jot ay nit ñu sérieux bu ñuy wax ñuy leeral loolu. Sénégal yi te aussi tamit ku ne xam na ne maanaam euh, ñi nekk fi nii bëri na xam ne ñoom ñu ngi koy leeral bu baax a baax mhm. ndax euh, boo leen xoolee tey euh, man ngeen wax ne yokk gi dund gi seer na loolu ñëpp ñëpp xam nañ ko mhm. waaye boo xoolee amuñu leneen lu xamante ni yokkaan nañ ko waaw maanaam dañuy dañuy jéem a def la tout fexe ko pour mën a pour mën a wàññi seeraayu dund gi Mhm. loolu moom ñu ngi si waaw léegi nag ñu ngi gis ñëpp ñu si wax naan dund gi seer na war nañ ko wàññi def nañ ko ni ñu si ëpp mhm. Macky Sall lañ àndaloon te bi ko makki Sall yokkee ñoom dañ na tekk noppi ànd ci nga xamante ni kii toog na ñu gis ne effort yi ñuy def am na solo seen argument yëpp mooy dund gi seer na mais ñoom loolu waroon nañoo rusu wax ko ndax bu fekkoon ne ñoom taxawaay bi ñu waroon a taxaw taxaw nañ ko duñ yokk dund gi ba Sénégal di dund ay jafe-jafe kon nag nañ xam ne bay dundee gi ñi nga xamante ni ñu ngi koy préparé pour jàppale ji Sénégal yi. Hmm. loolu buñ ci jubloo rek incha allah dund gi dana wàññeeku. te loolu ci lañ jëm waaw ndax fi ne nit ñi fi nekk moom liñ jublu lépp lenn la mooy li fi yàqoon yëpp nañ fexe defar ko te loolu ci lañ nekk ñi nag bu ngeen xoolee liñ fi amaalee gum rek benn weer lañ fi am ak fukki fan ak juróom-benn ci tey xam nga ñooñu tey amaguñ fi deux mois. Hmm. te aussi damaa seetlu ñu leen di teg pression yëpp di wax si ñoom di leen sonal yëpp amul kenn ko xam ne watal nga leen ñu leen watal ñun ñëpp ñu ngi ànd ak muñ di xaar am yaakaar gu rëy ci ñoom mais ñuy taxaw daal di leen teg pression naan leen lii seer na lii def na nii lépp kenn watalul leen ci waaw loolu nag nañ xam ne peuple bi nga xam ne ñoo leen watal moom am yaakaar ci ñoom lool te liñ jot a gisaaleegum seen xel dal na ci nañ xam ne képp kuy waxee na nga sóoraale peuple bi nga xam ne ñoo woteel président Diomaye ak président Sonko pour ñu nekk fi pour defar Sénégal loolu moom lu leeral leeral lu xamante ni ñoom ñu ngi ciy teg seen baaram te nit gis li ñuy defaale ndax gis ngeen moo di tey ñu si bëree bëree bëri ñu ngi fexe di continuer di napp di am jën te jën yi gis nga nu muy commencé ñëwee ñuy dem si géej gi nag ñoom ñoo xool bëri na ñu xamante ni am nañ moyen mais ñoom tukki moo leen gënal ñu wut wii sax na ñu ko am léegi nag ñoom ñu préféré jël géej gi mais ku mën a jël trois cent mille wala quatre cent mille nga fay ko ci géej te bëri na ñu nekk Sénégal di liggéey amuñu loolu trois cent mille quatre cent mille boo ko yoree fii am na loo ci mën a def rawatina gouvernement bu jub bi nekk fi nga xam ne boo yoree loo xamante ni daal yaa ngi koy liggéey buñ la jàppalee tuuti nga dem mais am na ñoo xamante ni ñoom xool loolu am na ñoo xam ne ñoom dañuy jàpp maanaam trois cent mil yi ñu yor ak quatre cent mille mën nañ fexe ba dugg ci te loolu léegi nag nit ku nekk moom li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam te loolu la bëgg a def loolu amul kenn ku ci man dara l'essentiel daal man damaa gëm ne Sénégal yëpp dañoo war a ànd ak xel mu dal xam ne réew mi ci baax la jëm ci defaru la jëm ci liggéey bu am solo la jëm te loolu nit ñëpp war nañ koo xam mhm. waaw di wax ne tamit si côté wàllu euh, justice bi yooyu ni ci gars yi xëyaat en tout cas suñ problème pour Sénégal defaru man ñenn rek laa gis ne ñoo ko nar a xajamal yàq ko mhm. mooy ay journalistes yu benn réew mi mhm. waaye nag bu yóbboo ñu noppalu xam ne communication bi léegi nekkatul ci journaliste yi lañ koy jëlee nit ñi fu nekk léegi mën nañ faa xamee sans journaliste yi wax leen parce que dañoo dem ba nga xam ne askan bi beneen bët lañ leen di xoolee bu bokkul ak bët bu sérieux ndax réew mu gis mu dem ci war a defaru te saa bu ñu xëyee di def ay sabotage yu xam ne doo comprendre ñii fan lañ jaar sax ba nekk ay journaliste nekk ci ay micro loolu nag mënatul jàll parce que bu yàgg koy xamal euh, rajo bu mel ni TFM ak télé bi. Mhm. ak Sen TV. amul benn communication bu ñaaw bu xam ne. sëñ bi nañu wax ci nañu wax ci nañ wax ci bi rek nañ wax ci thématique yi ñu bàyyi débat de personnes yi waaye ñuy bàyyi. Euh, ay këru taskatu xibaar yi ñuy tudd ak yu ni mel. Ah, loolu moom dama leen koy ñaan rek ngeen ngeen ngir yàlla ngeen wax ci débat bi te ñu bañ a personnaliser débat bi ñu bañ ci tudd ay këru taskatu xibaar wala yu ni mel dañu wax ci débat bi rek liñ gis lay wax. waaw waaw léegi nag ñoom biñ communication biñ def pour Diomaye du falu te terewul jomay falu na kon moo lay xamal ne seen communication boobu jàllatut kon lépp lu état bi di liggéey ñoom ñu taxaw pour saboter ko amul dara lu xam ne danga si jàll nañ xam ne daal lépp loo xamante ni ah maa ngi sax ah, xam ne daal lépp loo xamante ni daal gaa yaa ngi koy def buñ taxawee daal di si def beneen communication bu mel ni day yàqal gaa yi. nekkul lu xam ne mën nañ ci am ndam. waaw kay jërëjëf waaw jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax.